am fa weer ba mu ñibbisi nag fekk waa madina nam ko lool mag ñeeg gone ñëpp wëlbatiku di ko teeru ji te sori nag ca teeru ba ndax dox nañ doxu bis ngir teeru ko gone nag xam nga bu doxee doxu bis te daal di sonn daa tombeeg bis boobee nag nekkan bisu alxames ba ñu demee ñu fanaan ak Omar xëy si nag ajjuma ñibbi si madina kon mel ne kon doxaat nañ doxaatu bis ci bisu ajjuma ji ajjuma ji ba ñëwee dañoo noppalu jànguñu kon xam nga ne jànguñu alxames ja jànguñu ajjuma ja loolu nag ca la Omar diglee ne gone yi nañu noppalu alxames ajjuma bañ a jàng ñu def ko nag muy aw yoon wu ñu war a roy ba bis penc Omar da caa boole nag ñaanal ne képp koo xam ne lii ma digle mooy noppalu alxames ak ajjuma sàmm nga ko yal na la yàlla defal aw yiw waaye nag koo xam ne sàmmoo ko yal na yàlla xatal sa wërsëg nga ñàkk wërsëg bañ a am wërsëg wu yaatu la mu ca teg nag ci sartante docteur bi mu lay faj ba nga wér boo wéree fay ko nangam bu fekkee wéroo ameeloo ko dara dañ cee sart nga xam ne moom mi tawat mooy jënd garab ya waaye duñu nangu docteur bi boole joxe garab ya ak boole paj ma yaar yépp ci sartu nga xam ne moom mi tawat su wéree da koy fay mboolem njëgu garab ya wëlbati ko fay ko nag payug boppam payug pajam déedéet loolu duñ ko nangu moom kay li ñu nangu rek mooy lu ci garab rek moom mi tawat moo koy jënd docteur ba nag féetewoo topp toppaak paj maag lu ci war mu xamal ko ko su wéree fay ko lañ waxante woon su fekkee wérut dara waru ko ja wala yan taqidu du firiku alkiraa u liyaas ba bi mawtir raaki bi ci deewuk aji warja awi saakini wala aji dëkke ja da nga ne woon kuliya daaba te ràññeel ko bu daaba ja deexee dañ yemale foofa liyaas ba léegi nag mu ne bu fekkoon ne aji warja ci boppam moo dee waaye daaba ja deexut wala bu fekkoon ne oto la oto ba ci boppam baanut jëmi ka lu yëwoon ci boppam moo faatu yooyu yëpp moom mën nañoo seet daal di wéyal luyaas ba bañ caa teg bi dara bu fekkoon ne kër ga la itam ka ku lu yëwoon rek moo faatu waaye jëmi kër ga ci boppam lëkku deful dara mabul deful dara ba tey kooku des na bàyyi luyaas ba rek wéy ñu wéy ci nañ waxante woon wala bi mawti xanami rihaayati du caageenu ci deewu gàtti càmm nga wala yëtti na dikki rek bi misliha ci seenum kem ku joxoon nit ay gàtt di ko ko sàmmloo yu dem ba yàgg gàtt ya dee mbaa am yu ca dee ba tey loolu du yàqu lañ jëflante woon ci payub càmm nga na ko joxaat jur gu toll noonu rek bu fekkee lépp a dee wala mu mot li ko limba ba mat rek ñu wéy ci nañ waxante woon nee nañu nag bu fekkee mënu koo joxaat ak jur du tee kon mu warlul ko pay ga ba mu mat wa ma nikk taraa ku luye kiraan ab luye wala ab luyaas mab moonan bu di buñ warlu maanaam boo xam ne kenn ràññeelu ko rek mooy mab moon fa maata tëddee at daabatu daabaja fali atikoon na dikkee xëyrihaa ci judul moom la mu weesu woon fee mooy dañoo ràññeeloon ne daaba sàngam mbaa oto sàngam mbaa gaal sàngam kookam dañ ne woon jëmmi daabaja mbaa jëmmi loolee su demee ba yàqu mbaa mu paan mbaa bu dee daaba mu dee dañu yemale foofu rek luyaas ba dañu fay lu tolloog lañ jota dox waaye des ku mën a remplacer beneen fii nag moom mujj fii nag moom muy wax bu fekkee da nga ko ne rek luye ma daaba ma dem ca Touba mbaa Darul Manaan mbaa luye ma oto mbaa gaal ma dem ca béréb sàngam waaye nag ràññeeloo benn oto mbaa benn daaba mbaa genn gaal kooku moom gum la jox rek. bu demee ba mu am gàllankoor mu mën laa joxaat beneen ngeen wéy ci na ngeen waxante woon dara du ci sikk lee mu ca teg nag ne wa in maata ndeem faatu na arraaki bu aji warja lameen fasix du firiku al kidaa u liyaas ba waleeg taroo nañu liyaas makaanahoo ci bérébam ba xayrahoo ku dul moom ak baamu la xanaa lu may lam ko dolli ne waleeg taroo makaanoo xayra maanaam bu fekkoon ne jëmmi daaba ja ràññeel nañ ko waaye daaba ja deexul deful dara ka ko waroon rek moo dem ba yàgg mu faatu kon waxam na léegi te moom la baamuwaat luyaas ba mën naa bañ a tebbiku mbokk yi kooke nga xam ne moo lii woon daaba ja rek mën nañoo wéyale luyaas ba mu wéy te ñu fay kañ waxanteeloon lañ ko war a fay bu fekkoon ni kër ga la it mën nañoo toog rek ndegam ko luye woon dafa faatu waaye kër ga màbbul deful dara ñu toog rek àggale diiru liyaas ba niki bu fa soxnaam nekkee wala doomam ñu àggale diiru liyaas ba te fay rek la ñu war a fay ba tey mën nañ koo luye keneen te ñoom warlu rek lañ amee loon boroom daaba ja mbaa boroom kër ga wa ma nikk taraa ku luye maamoo nan jëfandikoo kaay aw xayrahu mbaalu dul moom fala damaana etub gàddu xale di ko war fii xalaaki yi ci alkoom nga biyadi yi ci loxoom wax wate moom kat mu saddaxun ku ñu dëggalal la illaa an yata bayyana ndari bu defu bir kasibuhoo fenam wax nee na bu fekkee da ngaa luye lu ñuy jëfandikoo mel ne ak bagaan gu ñu yekk wala cin lu ñuy toggee ak mboolem xeetu jumtukaay yi nga xam ne dees koy jëfandikoo ku luye lu mel noonu mu réer mbaa mu yàqu mbaa ñu sàcc ko it dañu xam dogal baa ñëw rek ndega moom sàgganu ci dogal baa ñëw kenn du ko ca fayloo dara te lu mu ci wax itam ci sànku ak yu demee noonu ñu gëm ko lu may nag la mu wax daa am lu ko teg bi mëne su ko nangu mel ne moom daa wax ne bis sàngam day lañ ko sàcc mbaa bis sàngam day la yàqu te gannaaw ba am ca teg bët mu di ko jëfandikoo ci gannaaw dat ba mu waxoon lu mel noonu moom dañu xam ne kon waxul dëgg kon buñ ko gisee mu def ci lu mu ci war a def mbaa ñu tuumaal ko ci rek topp ko su waree fay fay waaye bu dul loolu moom dañuy jàpp ne dañ ko wóolu woon ba luyee ko ko kon nag kenn waru koo fay rek ci lu dul ñu koy teg ci aw yoon wasunnaahu way xarala ña maanaam waroom métier xarala yi baami noona way gàddu lañu limaa ñeel la nga xam ne raaboo mën nañoo fàddu xale yi ci moom mooy rek mën nañ caa njublan amiloohu moo xam liggéey nañ ko bi ajrin ci ak pay aw bi xëy di ajrin wala ci ludul ak pay ñi nga xam ne ñoo amee xarala ubbi seeni place leen fay fekk leen defarloo leen fay niki wuude yeeg ñawkat yeeg ràbbkati sér yeeg tëgg yeeg yi demee noonu ñëpp rek ku ñu ciy liggéeyloo lu ñu mën a njublan boo layee rek naa nangam ak nangam ñu ne la fayal rek moo xam nag doon nañ ci laaju pay moo xam laajuñu ci woon genn pay moom daal moom bu ñu layee rek ci lu ñu mën a njublan naa dafa nangam ak nangam ñu leen fay leen boroom rek waaye nag nee nañu bu fekkee ne nitu xarala ka daa am ku ko doyloo féetewoo ko di ko liggéeyloo ba am compagnie wala mbooloo mu ko fab di ko liggéeyloo xam ne ñoom la féeteel du jëf leen teg ñëpp ñëpp ñooñu rek lay féeteel kon ñooña kat dañ ko wóolu doyloo ko ñoom duñ ko topp dara lu yàqu ci la mu leen liggéeyal mbaa loolu lañu xam ne dogal baa rek ndax ñoom ñoo ko doyloo ba tey nee nañu kat bu fekkee ne nitu xarala ka lim lay defaral yaa ngi toog jàkkaarloo ak moom moo xam daa ñu danga ko woo ba ci kër ga moo xam danga koo fekk ca fa muy liggéeyee la ca xew da ngay jàkkaarloog moom moom da ngay xam dogal baa rek waaye doo ko ko topp waaye daal jàpp ne ñooñu daal njublang moo ëpp ci ñoom kuñ ci liggéeyloo luñ mën a njublang rek gannaaw ba ngay sàkki lay rek ñu ne la fayal fayal rek moo gën a wóor wala damaana deetu gàddu xalaa saaxibil xammaami di war boroom baytu xammaam baytu xammaam ci jamono yooye ay sangukaay la daa doon yoo xam ne da ngay ñëw dugg ci biir fekk foofa tàng na ba sa yaram dana gajaf ba neex a sang ko defee ñu sang la nag nga fay nee na nag ka nga xam ne moo moom sangukaay boobee mbaa ka fay liggéey kenn du ko wax ne ko rek ku fi ñëw ñu fab alalam ñu kiñ jël ay yéreem yaa koy fay déedéet lu may nag mu sàggan bu fekkee dafa sàggan nag ca loola lay door a fay waaye bu fekkee sàgganu daal kuñ ci fab sa yëfit kenn du ko fayloo wala damaana teetu gàddu xalaa saaxibi safinati di war borom gaal ku yor gaal wala oto wala sax wëtir boo xam day jël ay nit wala sareet ñoo yemoo ko ci xam ne lam def rek la war a def accident ba xew daal dogalub yàlla kon alal ja ca yàqu mbaa bakkan ya ca faatu kenn du ko ko topp dañu xam ne rek dogal baax su fekkee ne moom moo juum nag def lu wërta def bu dee alal moo ko war a fay kon bu dee bakkan tam moo war a fay su fekkee ne nag moom moo jublu woon rey ñooña ba tax mu def accident ba nag kon moom bu dee hutit ca accident ba dañ koy rey fayantoo ci moom ndax moom daa jublu woon rey ñooña wala kiraa déet ak pay loxo di ko ñeel illaa xalal balaaxi ndare ca àgg ga dañuy wax nag ne kier oto di jël ay nit mbaa ay bagage ñu koy fay mbaa gaal mbaa saxaar mbaa yi demee noonu ñi ki wëtiireeg sareet yi waruñu cee fay kenn te du dalaa yóbbu ba fa nga jëm ba nga at nga xam ne nee nañu bu doon lu mel ne gaal daal di suux suuxaale bagage yi jaamur yi borom gaal ga kenn du ko fay dara ca loola bu doon leneen ba tey noona mu des nag bu fekkee ne paan rek mu am ca oto ba mbaa gaal ga mbaa loolee di def transport mënta jàllati nag wax ji gën a wóoru mooy nee na ñu seeboo rek ñu fay ko lu tolloog fa mu leen andi jéem a seet nuñ jàlle ñoom nag daa am na ñu wax naa waruñu koo fay dara dara ndax yóbbuwu leen fa ñu jëmoon waaye wax ji gën a wóor daal mooy seeboo rek ñu fay ko lu tolloog fa mu leen andi bàyyi ko mu dem ñoom ñu wuti lu leen jàllale waaye nee nañu nag bu fekkoon ne yaa luyee warukaay bi moo xam oto la moo xam leneen la dem ba ci biir na nga jekki-jekki yebbi ne duma demati su boobaa la ngeen waxante woon lépp nga koy fay bu doon daaba it noonu la moom daal moom boo xasee dugg ci luyaas bi bu ngeen juboo ba nga tàmbali ba noppi nag gannaaw ba nga bëgg a bàyyi nag da nga koy fay lépp la ngeen waxante woon li ñuy tuddee yàqale nag moom mat naa moytu bu baax a baax kenn sañu ko lu may nga waxtaan caag client ya ba ngeen am ceeg déggoo waaye jekki-jekki rek daal leen di yàqale te léeg-léeg warukaay ba nga leen di jox sabab moo koy gën ak coono yañ cay daj loolu daal sofóor si ak mbooleem ñi liggéey ci lu mel noonu nañ koy moytu bu baax a baax ndax moytoo ameel àq client yi tey balu client yi bu baax a baax wala ba sa ayut bi sharikati ci bokkaale muy société bil abdaani ci ay yaram ida amila ndéem liggéey nañu ñoom ñaar fii maw bihin ci ab béréb waaxidan bu di benn xamalan ab liggéey waaxidan bu di benn aw mutaqaariban wala muy aji jegente nangu nañu société ci daan doole ñoo xam ñoo bokk métier mbaa métier yi jege mën nañoo bokk rek noona di yëngatu luñ am rek seddoo ne bu dee docteur yi bokk di faj mbaa ñi bokk di ñaw mbaa ñi bokk di tabax mbaa ñi bokk di sàmm moom daal yi mboolem xeeti métier yooyu rek ña koy def mën nañoo def société bokk liggéey ba luñ ci am rek bokk bu dee yaaru jege itam mel ne kee daa xam xam-xamu paj kee xam xam-xamu defar garab ak yu demee noonu ba tey loola baax na de yaari liggéey yoo xam daal bee dafa jàppaloo bee mënuñoo tàggoo rek mooy jegente mën nañoo def noonu wata joosu dana dagan ak sharikatu bokkaale ga wala société ga bit am waali ci alal ya xalaa an yakkoon ci kaw bu nekkee arit fu bénéfice ba bay naxumaa seen diggante te xadri maa ci kem la nga xam ne axraja génne na ko kullu waaxid kenn ku ne min xumaa ci ñoom ñaar wala xamalatu liggéey ba it xalayhima war na ci ñoom ñaar te xadri maa ci kem la nga xam ne charata sart nañu ko mina ritxi ci bénéfice ba li kuli waaxid ñeel kenn ku ne ba tey nee na manes naa société ci alal mooy kee joxe capital kee joxe capital ngeen boole ko di ci yaxantu bu ko defee bu ngeen amee bénéfice nag kenn ku nekk la tolloog sa capital ak la tolloog sa liggéey moom nga cay am maanaam ki ëppale capital moo war a ëppale ci liggéey bi bu àggee nag ca bénéfice bi te mu ëppalee ca noona ne bu koy joxe woon ñaari million kay joxe benn million dañuy jàpp ne kon boo ko defee ñetti xaaj ke ma joxe ñaar ñi ci capital bi kon ba tey liggéey bi moo war a féetewoo ñaari xaaj ña ca liggéey ba ka joxe benn million bi mooy joxe ci ñetti xaaj yi benn bi ba tey kon liggéey bi moo war a féetewoo benn xaaju liggéey ba ci boo ko defal ñetti xaaj bu ñu àggee ci bénéfice bi itam def ko noonu def ko ñetti xaaj ñaar ña dellu ci borom ñaari millions yi benn ba dellu ci borom benn million bi wala ya joosu du dagan ay yaxtalifa bu wuute rasul mali capital ba wa yastawiya tañu yemoo fi risque ci bénéfice ba dañuy aaye na ñu sart ne li ñuy joxe ci capital moom du yem waaye bu àggee ci bénéfice ba daa war a yem loolu moom dañ koy aaye te aajoo ndegam capital yi wuute na rek ñu ëppalante ca bénéfice ba waaye nag wal xiraabu xiraab jaaisul aji dagan la bid danaa niiri ci ay dinaar wa daraahimi ak ay dërëm xiraab moom ak jàpp ndal la mooy boo yoree wur sa xaalis woo xam ne bëgg nga ku ca liggéey man ngaa fekk koo xam doyloo nga ko ak maanu ak mën a liggéeyam nga jox ko capital ba mu dem liggéey ci te ngeen juboo ci nag mu war a am ci bénéfice ba bu leen neexee ngeen juboo ci seddoo bu leen neexee ngeen juboo ci fukki xaaj mu am ca benn moom daal du ngeen ci juboo rek baax na ku ci mën di bari la ñoom ñaar ca lañ waxante ci bénéfice ak ak ku ci mën di néew la du wàññi dara moom dañuy sart nag capital bi nga koy jox nekk wuru sa xaalis bu nga xam ne def nañ ca tàmpeb nguur ga ba di ca jëfalante foofa ci jaay ak jënd léemu mu ca teg ne waxad urqisa yola ma leef na fii ci moom bi niqaari zahabi ci séem bi wurus wal fiddati ak xaalis mat naa teeylu séem bi wurus sa xaalis mooy morse wurus sa xaalis yi nga xam ne yu set la yu sell la mel ne wat mel ne yu tëggi wurus yeeg xaalis yi di xel yi di ko jëfandikoo ci takkaay yi lu mel noonu dane mënees na ko joxe muy capital wax ji gën a wër nag mooy bala ñu ko mën a joxe muy capital day fekk ñay jëflante foofa ci jaay jënd nangu caa jëflante ba noppi itam nag amut lu ñu sikaal maanaam amut xaalis boo xam ne nguur gi wéyal na ko def ca ak tàmpeem bañ koy jëfandikoo nga xam ne kon faaw day aajowoo rek beneen xaalis bi nguur gi tëral bañ faa am nga xam ne kon xeeti morceau yi rek moo fa am te des na ci jëfalante loolu ay tax ñu nangu ko waaye bu dul loolu duñ nangu nga jox ko seen bi wurus yooyu la muy capital wala yajoosu du dagan bil xoroo bi ci xeeti marchandise yi dañuy bañ koo defee ci marchandise doo ko mën a jox marchandise ne ko réglé nañ ko nangam la mooy sunu capital buñ ci àggee na nga am ci bénéfice bi nangam déedéet loolu moom nee nañu sax bu fekkoon ne seet nañ ba wurus sa xaalis amut marchandise kese moo am di tax ñu maye loolu wa yakoonu dana nekk in nasala ndem xew na a jiirandi ab bàjj fii bay xihaa ci jaayu marchandise yooyee waxalaa xiraadi mislihi ak ci xiraadi am kemam fi tamani ca njëgga nee na boo nekkoon jël marchandise mi jaay muy capital bi buñ ci àggee nga am ci bénéfice bi nangam te loolu nu aaye woon ko dañuy seet rek ba xam bu fekkee ba mu jaayee marchandise yi ba àggal teel nañ koo yëg jub te jëndaat dara dara dara dañuy seet kon ku jaayee la nit marchandise bu toll noonu luñ ko ci war a fay rek nga fay ko ci lu toll noonu ngeen tàggoo li liñ ci teg nag wax ala qidaad bi mislihi fi tamani mooy bu fekkee mooy bu fekkee ba mu jaayee ba mu jar dafa jëndaat marchandise tegaat nag léegi jaay di wéy rek kooku nag moom ñaari at lay doon dañuy njëkk a seet ba mu jaayee marchandise bi njëkk ba luñ ko ci war a fay ñu fay ko loola ba mu jëlee ba mu jëlee njëkk na di ca wéy di jaay ak jënd nag loolee ñu at leen yéen ñaar ci xiraadu kem xiraadu kem mooy ñu seet la jaar ci boobu xiraadu rek ñu àtte leen ci noona li muy tekk nag mooy loolee mu jàll di ci jaay ko jëndaat bu fekkoon ne dara tegu ci dara tegu ci amul dara ci bénéfice du am dara waaw ndax xiraadu rek lañu ko jàppee te xiraadu moom bu fekkee bénéfice amul doo am dara wali na xaami ni ñeel na aju liggéey ja kiswatuhoo koddaayam la wa taxaamuhoo ak ñamam wa ida saafara ndem tukki na filmaali ci alal ja allësi ja nga xam ne loxoo ñeel na ko baalum solo nee nag buñu la joxe alal xiraab tax laa tukki tukki bu sori te it alal ji am na solo kon boo demee da nga ci sañ di ca wut koddaay di ca wut la ngay lekk te kenn du ko boole ci sa wàll innama yëkk tas yi naka dana sañ a woddu fi safari ci tukki ba rek albaayi di bay aju sori nee na kat bu dee tukki bu sori rek dañu nangu bu cay woddoo ko lekk waaye bu dee tukki bu jege moom baal dindeew moom déedéet du ko ca man wala yaqtasimaan duñu seddoo arriba bénéfice ba xataa yanit da bate keewoo bate soppikoo kee rasul mali capital ba buñ xasee juboo ci def xiraad boobu ba kii liggéey ci alal ji wut marchandise ba noppi faaw rek bala ñoo mën a seddoo dañuy bàyyi ba jaay ba capital ba génnaat nekk wur sa xaalis lu may nag ñu am ca déggoo bu fekkee jugoo nañ ci seddoo te aguñu ca capital ba doonaat wur sa xaalis it waaye am nañ ci déggoo ñoom ñaar rek baax na li ñu bañ daal mooy kenn ka bëgg a forcé moroom ma ne ko dañuy seddoo xaat te fekk na capital ba sax jaayaguñ lu na toll waaye buñ ci amee déggoo ñoom ñaar rek baax na wal musaaqaatu suuxatante dañ koy wax waaye nag mooy ku am ay garab nga di ko ko suuxatan ngeen juboo ci bu jox la nangam ci meññeen ma bu joree mooy lu wóoraj la ndax xamuñu sax garab yi dana meññ am du meññ ak meññ ga dana néewam du ne waaye nag teewul rek def nañ ci ak jàpp dal daal ba tax mu ne dagan na fi usooli waaye nag ci taati garab ya dañ koy firi cosaane waaye mooy taati garab ya alaamaa ci kaw la nga xam ne tara ba yaa gërëmante nañu xale yi ci moom nag ajisaa yi ci ay xaaj nee na nag lu ngeen juboo rek ci moom bi suuxat mu am ko ci meññe rek baax na mën naa néew mën naa bari bu leen neexee ngeen juboo ci séddoo bu leen neexee ñetti xaaj ci meññe ma mu am ci benn bu leen neexee fukki xaaj sax mu am ci benn lu ngeen ci juboo rek baax na wala xamalu liggéey ba kulluhu léppam xalal musaaqa war na kañu suuxatan teel ah liggéey bi lépp moom mi nga xam ne mooy suuxat ñu koy fay moo ko war a liggéey wala yashtaritu du sart xale yi ci moom xamalan benn liggéey xayra xamalil musaaqaati budul jëfi suuxatante ga boo ko wax ne ko nag nangam day da nga ko ciy boole te fekk loolu bokk ci mel na nga ne ko dañuy juboo ci suuxatante gi waaye bisub gaaw moom danga may jaayal ci sa place ba ca dëkk ba da nga jool jotiwut ak dara ak suuxatante gi lu des ko nangu wala xamal shay'in du caa génnu jëf dara yoon si loolu dana ko sos fil xaalis ca tool ba muy ca tookër ba illaa ma dara loo xam ne laa baala dit solo lëxoo di ko ñeel min shaddil xasirati ci takk ngédd la muy ñag ba wa islaahi dafirati ak defar mbalka ma waxeete moom dafiratu xamut mujj tamaxul maa yi mooy dajukaayu ndox ma min xëy an yoon si a ci lutul muy sos bina ahaa tabaxam ba doo ko wax ne ko nangam amutoon ci tookër bi te yaa ko fiy def lu may nag loo xam ne amutoon solo nga ne ko loolu kon yaa koy def mel ne la wër tookër ba daa xaw a sàq jur ga gaaw koo ruur nga ne ko defar ko ba mu dëgër mbaa mbalka ba ñuy def ndox ma day seen yooyu nga ne ko léegi sakk ko maanaam diw raax ko ba nga xam du seen du seenati léegi lu mel noonu yëpp mënees na koo sartal waaye boo ne ko nag mbalka amu fi mbaa sett ne amu fi te yaa ko fiy def su boobaa mu yàqu moo tax mu ne ci lu muy sos tabaxam ba mooy defukaayu ndox ma ab sit nga ne ko defaraat ko yoon nangu na ko waaye nag amu fi moom defukaayu ndox te yaa ko fiy def loolu duñ ko nangu wattal fikiru góoral ga xalal xaamil war na aji liggéey ja nee na góoral ga moom góoral tàndarma ya te mooy fab ca tóor tóori gu góor ga def ko ca gu jigéen ga ndax meññat ma bañ a ruus loolu moom mi liggéey moo ko war a def ndax ci liggéey bala bokk wa islaahu masqitil maa i defaraat rootukaayu ndox ba minal xar bi te moo di ngës ma ngës mooy baag bu mag waaye da caa jublu nag ak lu mel ne baag ni ki roosewukaay baag mboolem jumtukaay yooyu ñuy jëfandikoo ca ndox ma watan xiyatu manaqi shajari ak setal naanukaayu garab ya muy taatu garab ya watan xiyatul xëy ni ak setal bët ndox ba muy sekkar ci siyaan ga ci misaal ba mën a saw maanaam mën a xeli ndox bu baax a baax wa shibfu dalika ak nuroog loolee jaayisun aji dagan la al yushtarata bu dee fi ko sart xalal xaamil yi mu war aji liggéey ja nee na lu mel ne defukaayu ndox ba nga xam ne moom la ñuy roosee mbaa moom la ñuy tànqee ca teen baag seetal ne ba bu amee sikk nga ne ko defaraat ko ba mën a roosee bu baax mbaa ba mën a tàng ndox bu baax ak taatu garab yi mu di ko seetal ba bu sottee ndox mu jàll ak sekkal ci lu mel ne bëtu ndox ma seyaan nga ba ndox mën a génn bu baax yu mel ne yii moom ñu sartal koy liggéey ne ko def ko wàññiwul dara ndax yooyu amul solo te ci liggéey ba la bokk wala tajusu dagan al musaqatu suxatan dega xala ixraaji ma ci sartu génne la nga xam ne fil xaayit ñekkoon na ca tool ba min ad dawa bi ci ay daaba duñ nangu nag yow mi nga xam ne yaa moom tool bi nga ne ki ci liggéey li ko fekkoon ci ay daaba ñu ci liggéey ci tool bi daa leen di dindi yóbbu ci beneen tool ba daa leen téye yow yaay wuti say daaba yi nga xam ne moom ngay suuxate yooyu faaw da nga fay bàyyi yooyu rek moom wama loo xam ne sax maata deena min xaa ci daaba ya fa xala rabbihi war na boroomam xalafoo wuutaatam boo jubóog moom sax ba mu tàmbalee liggéey ci tool bi ci suuxat daaba ya fa nekkoon am ci daanu sax daanu mooy dee bu dee ci daaba su boobaa nga war ko wutul wecc yooyee ndax yombal liggéeyam ndax yooyee dee di daal di metti liggéeyam waaye it nag war na faqatu dawaab bi dundug daaba ya wala ujaraay ak bàjj ya xalal xaamil war na aji liggéey ja loolu nag moo xaw day wax dañoo wax ne yow mi liggéey ñu lay fay ci suuxat gi daaba yooyu ñu ne sañu su koo jaay te wu ca dee ñu wecc la weneen ndax sa liggéey yomb yaa war a dundal daaba ya ña nga fekkoon ñi liggéey ca tool ba it yaa li war a dundal war leen a woddul maanaam ña nga fekk ca tool ba ñu fay liggéey ak daaba yépp yaa war lu seenu dund jëm seenu pay nag moom bu fekkee ne borom tool bi la andi woon moom moo leen di fay yow ci sa bopp nag boo wutalee sa bopp say bàjji bopp nag say employé bopp nag ba tey ñooñu yaa leen di fay waxale yi war na ko zarixatul bayaadi jiwu ndeeneer ga al yasiri ga aji néew ndéeneel mooy digg bu saxul dara bu amee digg bu saxul dara moom nee na moom mi nga xam ne mooy suxat dafa jéem a def dara lu fa sax ndax bu baax wala bas ayut an yul xaa bu dee fi wàcc daalika loole lin xaami ni ñel aji liggéey ja waxoo moom sax axalluhoo mooy gën jaay yelloon daa wax ne nag bu fekkee ne ndéeneel googee waa ji liggéey jënd ko li gën mooy ñu bàyyee ko ko mu moom ko rek yow mi nga xam ne yaa moom tool bi nga bañ caa am dara ndax dañuy bañ ndegam moom moo ko ji di ko suuxat bu ngeen ko séddoo boole ci day mel ne kon lañ daan aaye mooy suuf nga di ko luyee lu bokk ci xeetu jiw wa da caa am ndax nee nga moom moo ko ji ba tax mën naa lies la ma min kidaayil ardi bi jus ima yaxruju min ha kon daal la gën mooy ndéenéer googee moom bu fekkee ne waa ji liggéey ci ne ko ñu bàyyi ko moom dong moom ko wa in kaana dem nekk na albayaadu ndéenéer ga kasiran di aji bari la may gis ko du dagan ayadu xola mu tàbbi fii musa xaati naxli ci suuxatan teg tàndarma ya illa an yakkoon dara bu dafa nekk xadra sulusi di kem ceer ba minal jami ci lépp fa aqal la topp lu ko yees nee na bu ndéenéer ga baree moom ba noppi ñu ne ki ci liggéey yaa koy ji di ko suuxatan te nga séddoo ko borom tool bi mu daal di yàqu soxatan dëgg yàqu lay baax daal mooy xaymay ndéenéer ga ku ko seet ci léppi meññatum tool ba mu tolloo caag ab ceeram mbaa sax du mat ceer ba dañu soo beree lu yaasu suufas ndéenéer ga ne nangam la seet xaymay meññet ma ci gannaaw bañ ci génnee fere ya ne nangam la nga boole nag yaar yépp gannaaw ba nga leen boole nag nga wëlbatiku ber xaymay suuf su ndeeneer ga su fekkee xaymay suufu su ndeeneer ga boo ko seeteeg lépp dana ca tolloog ceer mbaa du mat sax ceer ba rek dana baax waaye su fekkee dana ëpp ceer ba rek du baax ne bu fekkee ne dañ ne woon soo boolee luyaasu suufas ndéenéer ga ak xaymay mboole meññatum tool ba lépp lépp dana war a mat téeri junni te nag boo beree luyaasu suufas ndéenéer ga kese moom fukki junni lay tollool su boobaa kon xam nga ne fukki junni mooy ceeru bi nga boolee lépp muy fanweer kon dana baax ñu nangu loolu ñu wax mooy kay liggéey suuxataale ba tamit mu seddu ko borom tool bi waaye su ëppee loolu rek kon dees ko nangu wa sharikatu bokkaale ga fi sarxi ci bay jaay sat aji dagan la ida kaanat dem nekk na azarihatu jiwwa min huma tukkee ñoom ñaar jamihan boole seen warif fa te bénéfice ba bay na huma nekk na seen diggante kaarat moo xam nekk na al ardu suuf sa li ahadihima ñeel kenn ci ñoom ñaar wal xamaltu liggéey ba xalal aaxari war na ko ca des awil xabal wala liggéey bi bay nax maa nekk na seen diggante waxtara yaate ñu bokk luye al arda suuf sa aw kaanat mbaa suuf sa nekk bay nax maa seen diggante nee na nangu nañ bokk bay lu ñor rek ngeen séddoo kem na ngeen ci jubóonte woon loolu nag mooy day aajoo kenn ku ne génn aw jiwu nga xam ne cay ñore ñoo koy bokk mën naa am nag gannaaw ba kenn ku ne génn aw jiwu ba noppi kay joxe suuf te bañ a liggéey kenn ak moom féetiwoo liggéey ba ndax joxewul suuf mën naa am itam kenn ku ne génn aw jiwu ba noppi ñu bokk suuf sa nañu bokk suuf sa mën naa doon ñu liggéey ko mën naa doon ñu dogal leen ko mën naa am fekkan muy seen suufas maam dagam kenn ku ne génnew jiw rek noonu lépp baax na amma in kaan daal dem nekk na albadru jiw wa min hindi ahadihima di bàyyikoo fa kenn ci ñoom ñaar wa min hindil axari te bàyyikoo fa ka ca des al ardi suuf sa wal xamalatu liggéey bi xaalis yi war na ko moom mi joxe suuf si aw xaalihima mbaam war ci ñoom ñaar ñëpp war rifo te bénéfice bu bay na xumaa nekk na bay na xumaa nekk na seen diggante lam ye gis kon du dagan li ñu bañ nag moom mooy jàkkaarle jiw ak suuf bu kee joxe jiw kee joxe suuf rek moom mu daal di aay li nagu